Serigne Babacar Si ma ngay way maam Cheikh Omar yu daawi bi daawi shiriki bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisanihi yafqahu qawli amma ba'da assalamu alaykum wa rahmatullah internetu SSP TV ñu ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen màggal di leen wàccoo seen wàccuwaay naan leen tey ñu ngi fii ci xadara bu sell bi di Tiwaawan ñëw ngir won leen lépp lu fi am gannaaw ba ñu gàmmoo ba ca ëllëg sa incha allah ci gàttal ñu ngi fii taxaw fii ci bërëb bi nga xam ne fii la Cheikh Seydi Mouhamadou ni Mansour si borom daara ji tëdd mook soxna Asiatu si ak soxna Fat si Mansour kon ñu ñëw rek pour waxtaan ak taalibe yi ñëw ziar si gis nañ mbooloo bu takku bi fi taxaw fas yéene ziara ñu xool rek mbooloo mi ñu waxtaan ak ñoom incha allah. sama caméra bañ la nuyoo ziar la di la laaj tur weeg sant wi. Marie Sène laa tudd Marie Sène. yaa booy mun na ñoo xam foo jóge ak naaj bi ni mu tàngee ak rang bi ni mu guddee mu jaral la nga taxaw. taxawaay bi gis nañ ne mag nga taxawaay bi yàgg na te metti na lu waral ak bi ne mel. borom guddeegee ko jar ma jóge ba mbuur ñoo mu jaral ma ma siyaar ñaan fi sama soxla te yal na ko nang yàlla nang ak mboolem jullit borom guddi gi jar na. Ndeye Diop laa ñoo xam yaa fan nga jóge ci réew mi. Sénégal gi si Ndakaaru Njaay waaw waaw. lan waral eh, ziyaara ba ak taxawaay bu yàgg bi. fas yéene ñu dox si eh, sanga bu tedd bi parce que siyaare si daraja yonent ba yàlla tax te bëgg ka fi suñu xol daal rek xal amu sopp ko. bëgg ko am yaakaar ci moom tey ak ëllëg di ñaan yal na yàlla yokk leeram liñ ciy sàkku ci si Tiwaawan yal nañu ko may ci barkeem bëgg nañ ko sopp nañ ko xam nañ mooy kan moom la yàlla booleel kon nag suñu ñaan ji ñuy wut si moom yal nañ ko yàlla nangul ak mboolem jullit bi ñëw Tiwaawan. jërëjëf Thiaré jógee ba Dakar ñëw fii ziar si ziar si ziar si waaye sëñ Mansour na ko. waaw moo tax ñu ra depuis ci suba pour ziar ko daal.